salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi maa ngi ñëw dugal am bongo ki mu doon kat mu wax mais balaa boobu damay def ci entrepreneuriat diggante Ndeye Ndiaye Banaya njàpp Sidi Diop ak Waly Seck nanu bàyyi di wax naan Waly Seck du ci dara Waly Seck yëgul dara Waly xam na lépp Waly yëg na lépp lépp moom la neex parce que Waly Seck moom moom moom Ramadane Waly Seck mooy président bi bu ko nit indilee njàpp wala am Ndeye Ndiaye yaa bu neexul Waly du fa ne bu neexul Waly du fa toog kon Waly sekk moom mooy décider yëg na lépp njàpp erreur bi mu def mooy ba muy ñaan Wally Ballago Seck oto mënoon na ko koo ñaan ci suuf mu nekk message mais warul yëg ci kaw seen bi naan ko damaa bëgg nga may ma oto devant tous les sénégalais te mu nekk ci ab label nekk ci benn musicien muy Sidi Diop. première erreur ngi noonu deuxième erreur mooy Wally Seck mënoon naa tëral nday jaay bànn yaa dimbali njàpp ba pare na leen toog leen fa ngeen nekkoon ngeen Seck warta nekk jamono ji sax di concurrence kenn parce que du moroomu kenn bay concurrence teg kenn mais léegi ay concurrence mi ngi doog dugg ak ay gaaruwaale ak yooyu ay nit buñ ko indilee ay nit ay nit ñu bon buñ ko indilee ay nit ah Wally sekk bu ko neexul du fa toog kon moom lu am ram Ramadane rek moom la neex yaa ngi dégg man damay ànd ak moom bëgg ko te yàlla tax mais damay wax dëgg man ci dëgg laay dee buñ may bàyyi nan ma bayi ci dëgg Wally bu ma dee ba na a teral ne leen dem leen toog fa ngeen nekkoon di liggéey nan bàyyi naan waali du ci dara déedéet waali lu am ramdaan rek moom la neex mooy président bi kenn ni dafay dogal muy moom tey jii Baye Sall buy wala muy ne Ndeye Ndiaye bànn bu neexul waali balaago sekk du fa toog bu neexul waali balaago sekk du toog nan bàyyi naan du ci dara lépp moom la neex rek moo tax muy am sama waay la sama xarit la man ci dëgg laay dox ñoom Amady Badiane ñii di gën def interview di accepté wala ñuy kii wala ñuy laam-laamee dañuy laam-laamee di wax rek ñoom ñëpp a yem dañ cee mënul dara parce que waale yi décidé dañuy def sàmbalaan yi rek mu neex leen mu naqari leen aw diggante awaak nday njaay bànn yaa sàmbalaa fa am rek mais ne xew lépp kenn mënu koo wax dañ cee mënul dara da ngay mën accepté wala nga génn parce que ñoom décidé wul da ngay mën a accepté wala nga dem waali mooy décidé te kun ko indil bu ko bëggee dafay toog waali mooy président bi amul kenn kuy dogal ku dul waali man ci dëgg laay dox nan ma bàyyi ci dëgg mere ma ci dëgg wasalaam